lu jëm ci participation solution yi moom am na te loolu yàgg na xëy na nag peut-être ni ñu koy waxee moo tax waaye ministre éducation yàgg nañoo wax ba am na xale bi am pièce d'état civil ndax loolu moom mooy norme ndax nit bu juddoo dafa war a am pièce mais terewul comme toujours am na ñu ñuy wax ni amuñu ko te am na ñu ko amul mu ne ñu xale bu nekk CM2 laaj leen ko il faut ñu laaj te quand même mais suñu amul. bu mu teree ñu def ko loolooy indi sax di gis ku dem ba troisième xëy na du du am pièce d'état civil loolu moom réglé nañ ko waaye comme da nga jàngat bi te ñun dañuy def njàngat man jàngat bi ma ci ci observé te ñun le plus en plus tax liggéey bi ñu ngi koy def ay at boo xoolee day mel ni da ngay ndox euh, barigo booy sotti mu am euh, bën-bën loo sotti day mel ni defoo dara kon dafa war ñu taxaw ministère dëgg la defal nañu ay outils maanaam def nañu ay plateforme foo dem maanaam boo bu ñu laajee directeur bi nee nañ ko na renseigner waaye loolu chiffre rek la mais président tribunal soo fay dem dossier ngay yóbbu loolu indi problème bi loolu dañ ko war a bàyyi amul jën benn jëriñ ci jamono bu ñu toll nii ndax entrée en sixième yi bunt la waaye am na yeneen bunt yoo xam ni boo xale bi amee certificat war na fa mën a dem. ñu wax ko parents yi ñu wax ko enseignants yi pour que ñu commencer bàyyi di wàññi at uniquement parce que. dañu jàpp ni xale bi dafa âgé mu des nag ñi nga xam ne effectivement ñooñu amuñu dañu am problème extrait te je me retrouve avec sept cent juróom-ñaari téeméer euh, xale sept cent yoo xam ni ñee nañ ma pour le moment amuñu état civil amuñu këyit bon des fois day évoluer fii balaa examen jot des fois ñu indi moyen bi nga xam ni daama dama ci daan am lu tane ren maa ngi ci deux cent